coowal Cheikh Yérim Seck ak Ousmane Sonko exactement livre bi nga xam ne itam tuddee euh, Macky face à l'histoire euh, Néanmoins, Ousmane Sonko en 2019 il a été surpris avec une fille euh, si li nga xam ne moo di dans une position très très délicate alors si ça, c'est nag la koy dem wax le ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur mu daal di ko yéegal si président Macky Sall naka président Macky Sall ne ñu nëpp nëppal yëf yi adversaire politique du ko xeex si wàllu li nga problème de mars, mais plutôt li nga xam ne programme exactement donc ces révélations faites par Cheikh Yérim Seck euh, nit ñi daal di gën a remettre en cause diggante ak Adji Sarr ak ki nga xam ne moo Ousmane Sonko exactement euh, Cheikh Yérim Seck livre bi nga xam ne bindu na ko la mooy sa analyse. Euh, man damay sant yàlla. Hmm. man Kona damay sant yàlla. Hmm. ba nekkuma intellectuel hmm. man damay sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin doon naa rêvé nag nekk intellectuel naan je pense que effectivement analyste politique di fen mais heureusement parce que dama xam ne ñi dàq fen ci Sénégal ay mm. intellectuel lañ mm. ñi dàq fen ci Sénégal mooy ñi jàng ba seen jàng kawe ba nga xam ne ñoom ay sax ay jàngalekat lañ exemple ci ki nga xamante ni moom mooy Ismaïla Madior Fall constitutionnaliste la mm. jàng nekk juriste jàng bari xam-xam lool di intellectuel ñëpp nangul ko ko waaye fenkat la fenkat la workat la kàcckat la amul ngor amul dignité amul valeur kon ma ñàkk ma am ngor am dignité am valeur am am am ngor am lépp ñàkk a doon intellectuel moo ma ko gënal. te maanaam te damaa jàpp ne doon intellectuel ci Sénégal fii c'est synonyme wor ngor fe fen wuruj ak jaay sa bopp kon damay ñaan yàlla am ngor am lépp. ñàkk intellectuel moo tax sant naa yàlla ba doonuma intellectuel alhamdulilah rabbil alamin exactement donc Cheikh Yérim Seck li mu wax nii euh, day utiliser intellectuel am pour daal di euh, li nga xam ne que mu di lëndamal sénégalais exactement mënul li xam nga Cheikh Yérim mënul lëndamal xelam yi sénégalais Cheikh Yérim yàgg naa wax hmm. xam nga man damaa jaaxle ci ñuy tuumaal Sonko ak ñi koy jéem a salteelal hmm. dama jaaxle histoire bi moom bu doon wax bu doon dafa nekk dëgg histoire histoire Adji Sarr Ousmane Sonko moo ko gën a carré scénario scénario boobu moo gën a carré hmm. boobu dafa carré scénario bu carré la ndax lu mu bon bon Ousmane Sonko nee na man dem naa Sweet Beauté léegi imaginer koo xam ne jiiñ nañ ko loo xam dafa carré carré nga xam ne moom dem na ci lieu hmm. loolu jàllul sénégalais yi dégguñu ko sénégalais yi génn joxe seen bakkan ngir ngir setal kooku hmm. nga xëy yow no xam nga maanaam euh, ndeysaan Cheikh Yérim yàlla na yàlla yërëm ko <laughs> ndax dafa nekk ci réew mi waaw dama lay expliquer si laa nekk nii dafa nekk ci réew mi juddoo ci réew mi màggee ci réew mi hmm. tekkee ci réew mi jàngee ci réew mi bokk fu baax nag bokk fu baax moom Cheikh Yérim ndax alaaji Sàmb Ndukumaan Sekk mooy maamam ñu tuddee ko Cheikh Yérim Ndukumaan Sekk muy maamam mm. Yérim wa aar woo minal samaay xut bu rabbaani zaayibul saxaay bokk fu baax di géwél nga xam ne bu ko neexee lekk addiya bu ko neexee lekk wayaan mm. te day rees mm. moo booy ñang ñoo bokk benn maam muy nijaayu booy ñang tekkee ci réew mi ma xam ko Cheikh Yérim bu demee ba mënatul wax li mu gëm mënatul wax li mu li mu li mu sentir dem ba mu yàgg mu ne noppi naa ndax ku ñu logal nga logg kuy lekk du wax dañ koo joxoon avance looloo taxoon mu noppi di waaj di bind ay scénario nee naa ko Ousmane Sembène wala ñi nga xam ñooy scénariste yu mag yi moom mii jàmbaar la de bu defoon bu defoon théâtre dina yëkkati aaru Sénégal non si laa nekk si yow laa nekk nii. la suuti rek maanaam comme Cheikh Yérim Seck teg teg tekkaaram yëpp nekkate dafa am lu doon préparé. avance la jël ah man ngay waxal Cheikh Yérim avance la jël te ku mën a fen la te nag ku mën a fen la ndax dafa nañu woon damay reculer. xam nga man ba ma waxee loolu rek laa xam ni ku xoromoo ngi nii moo tax yàlla bu ma doon intellectuel alhamdulilah moo tax su ma gisee ñuy xas Cheikh Bara Ndiaye naan ko day intellectuel ak ay doo analyste politique alhamdulilah ba nekkuñu analyste politique nekkuñu inte parce que analyste hmm. politique ak intellectuel si Sénégal mooy fen dama ne la dafa ne damay reculer doomam moo violé doomam moo topp ci ay tànkam ñu hmm. ne ko hmm. loxo bu gudd loxoom bu gudd moom loo mam doomam li mu def man su ma ko defoon heure bi maa ngi ci kaso bi moo tax su ma gisee ko naan justice damay jaaxle gis nga wallaahi Sénégal boo fi amee tur am fi alal même ñu la waree tëj dix ans doo tëdd six mois nga génn ci kaso bi wala nga bokk ci nguur tey lu gën a ndaw li doomu yi Yérim def am na ñu gën a ndaw doomu mm. baadoola sama taari yu gën a ndaw lu gën ndaw ndaw ñu def ñu nga tëdd ci kaso bi correctionnel moo buma bu ñu Sénégal amna justice dëkk bi dëkk yoon la ça m'a fait la chair de poule té ñukoy wax ñu ngi teg seen ci injustice yi am ak discrimination bi crise de valeur bi am ci réew mi ak deux poids deux mesures Cheikh yirim dafa reculer yar sama ah il est irresponsable sunu mami suñu papa yi dañ un am ñenti soxna hmm. am liggéey di taba taba teewul dinañ yar seen njaboot ci ngor ci diine buñ buñ né dama ni kër gi ne yow amoo lu dul ñaari ndoom liggéeyoo journal ci kilim ngay toog di bind sa liggéey méttiwul liggéeyoo manœuvre de nekkoo docker nekkoo baaru ñu ne kaay maay wax ak yow waaw non dama lay expliquer seen liggéey naqariwul ne léegi yéen nga nga irresponsable ba munoo yar sa njaboot kon imagine Ousmane Cheikh Yérim bi mu nekkee di journalisme yëpp kon moom yarul njabootam léegi ba mu ne man léegi damay reculer pour mën a yar sama njaboot xam nga loolu ay fen mënu koo gën a weesu laa léegi diggante bi mu reculé waaxaara diggante bi mu reculé diggante boobu ndax ndax yar na ci njabootam xaj na ci waa léegi Cheikh Yérim na ñëwaat na dañ koo joxoon avance mu ngi mel ni mbër muy préparé combat des fois Balla Gaye day préparé combat six mois Cheikh Yérim daa jëloon avance di préparé combat en avance diaboliser Ousmane Sonko. mais livre bi yow diaboliser na ki ki présent Macky Sall. il kay le le pièce bi le piège. Il faut nga euh, euh, scandale. <laughs> scandale au code de la République. il faut le piège bi piège hmm. gis nga Macky Sall le Il koy khas Sonko. Il hmm. hmm. euh, xol bi day parce que mag yi bañul ni dafa bon bañul ni échec na bañul ni faillir na mission am bañul ni tële na bañul ni dictateur la. Hmm. mais ku may donn maa ngi a ma yem kon bàyyi leen ma fi gis nga. dégg nga fu may waxee. bañuñu ni ñoom régime bi bañuñu ni ay sàcc lañ. donc maanaam si ñëpp a yem daal. bañuñu ni ay lañ. Hmm. bañuñu ni war nañ askan bi. Hmm. bañuñu ni seen bopp lañ fi nekkal waaye xamal nañ bëgg a wax même keneen ku fiy ñëwaat ñu nag moom a yem kon bàyyi leen ñu fi. kon Cheikh yirim dafa jotone avance tëju di xol nan lay jappé ci combat bi nga xamanteni moy mooy diaboliser ak toroxal Ousmane Sonko mais dafa mu juum rek parce que scénario bu ko gëna carré jaar na fi. Hmm. te sénégalais yi ñu ko seen bop te doom dañu wara xol évaluer ni da ngay évaluer bama dalé nek ci projet bi batay tey. Hmm. projet tuumaal nit projet toroxal nit di ci financer di ci investir sama doole lan la ma jural en retour lu di gëna yëkëti yëkkati bi di ko gën a à l'émergence émergence di ko gën a à la succès di gëna yëkëti yëkkati gaayan bi nga xamné bu né dama né bu né dama ni xola maanaam 17 millions de sénégalais yi daal di na ko ñooñu ñuy taxaw bu ne damaa damaa balaa mu naan damaa bëgg ñu ne ko loo bëgg joxe li sëriñ ñi daan am la am maanaam day joxe ndigal gars yi. exécuté nag mais mais kon jeunes yi ñoo ko topp nag. Euh, euh, paa <laughs> yooyu noonu soo soog la jeunesse la jeunesse est l'avenir ah, d'un ah, pays. Euh, ah yow da ngaa ma yàqu nga naa ma et puis et puis xoolal bëgg a tuutal Ousmane Sonko dañ lay poser question yu dof naan jeunesse bi rek ñoo ko topp.

quasi totalité des Sénégalais soixante-dix pour cent ou quatre-vingts pour cent des Sénégalais ce sont des jeunes bàyyi mbeen kon Ousmane Sonko bu ko jeunes yi toppee gàcce ngaalaama ndax nit ki bu doyee jóg di ut ndam ay jeunes ndaw topp la loolu mooy l'avenir Abdoulaye Wade bi muy doog a jóg ndaw ñu ñoo ko gëmoon mm. ndaw ñi ñoo ko toppoon ñu naan ndaw ñi ay xalalan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy doog a jóg ndaw ñee ko topp mag ñi dañu doon wax ni doomu Abdallah ji ku xamadi la. Mm. mu ngi détourné sunu doo xelu doom yi. Mm. maay wax ak yow histoire laa lay wax. fii képp ku fi jóg jigéen ña ndaw ñu topp la mooy wane ni tu es l'avenir mooy wane ni yaa ngi ci yoon bu baax te yaa ko waxal sa bopp Ousmane sonk ndaw yi ñoo ko topp te ndaw yi ko topp ñooy màgg ëllëg. Mm. te ndaw yooyu tey dañoo peser lu baree bari ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy électorat Sénégal. alors il y a encore exactement mais est-ce que li nga xamné que modi euh, dossier am ak Adji dit pare je ci Cheikh yirim non Cheikh yirim la lay waxal. xam nga ah, la ci Cheikh yirim dama ne Cheikh dafa avance. Ah. avance bi hmm. ci di préparer combat préparer bi lan ban scénario lay bind. bu meuna japp contribuer ci li nga campagne de diabolisation de Ousmane Sonko ak ñimu andal na ci télé yi wax théoriser pour gën a réfléchir xam nga borom xel la ndeysaan waaye ndeysaan mbooy muusee yaakaar ne yaa gën a muus nit ñi nit ñi ñu ngi uti garab yu ñu lay fajee boo jàppee ni nit ñi dañoo dof ñoom intellectuel yàlla nañ gudd fan nag yàlla nañ gudd fan ndax baax nañ ci réew mi ndax tax nañu am esprit de critique wallaay ñi tuddee seen bopp intellectuel dama leen a bëgg ndax ñoom jàpp nañ ils sont plus intelligents que nous te on est en avance ah. on hmm. hmm. ñoom ñoom ñu tuddee seen bopp intellectuel ak ñu yor nguur gi hmm. askan wi dañ leen raw bu làgg ci xalaatin dañ leen a raw bu ñuy wax nii lu ñu xaw a wax bopp xaw nañ koo xam ñun. Hmm. kon c'est pas la peine Cheikh limi limu def ni dafa lekkoon avance rek te il faut mu légui nak moo wax la li tax mu xasaale Macky Sall Macky Sall dafa am gestion. Ah, moom boo gisee Ousmane Sonko képp kuy xass Macky Sall di ko xasaale. Hmm. yow yaa ngi bëgg a yaa ngi rendre service Macky Sall xam nga moo parce que Ousmane Sonko kenn dénk ko réew mi. Hmm. Ousmane Sonko dafa prétendre di jiite bëgg a jiite réew mi te ambition. kenn terewu ko ci réew mi mais Sénégal la gis ñuy téré nit am ambition. moy nit am bëgg-bëgg. nit am ambition ne man li la bëgg di ci dem Sénégal dañ lolu deli na légui

xam nga bu demee ba Cheikh Yérim du ñu wax kan mooy Macky Sall naan Macky Sall bi ko ko Antoine Diome waxee après dafa ne ko man du ma xeex ak sama kii si po. si mais loolu c'est contradictoire ndax xam nga war c'est contradictoire xam nga war c'est contradictoire tey Adji Sarr ak Ousmane Sonko. Hmm. pourtant Adji Sarr sénégalaise la Ousmane Sonko Sénégal la bi mu ko porté Macky Sall la wax ñaari sénégalais la sama yoon. ñaari sénégalais waaw léegi lu tax dossier bee mu intervenir ci léegi lu tax dossier bële.

bépp dossier bu ñëw wala plant procureur dina ma woo téléphone ne ma lii xew na leader politique bi nga xam ne moo gën a charismatique moo gën a am ampleur moo la gën a solal benn jigéen ñëw porte ko plainte te procureur waxu la ko c'est contradictoire Adji Sarr jour bi Adji Sarr avant moo porte plainte sax Macky Sall yëg na ko waxuma la sax ab porte avant avant avant moo porte plainte Macky Sall yëg na ni Adji Sarr ñu ngi waajal lii léegi si kon li ma la wax ni Cheikh li mu indi dafa gën a leeral ni lii ay fen la li ngay def nii ay révélation ngay def exactement euh, konal fan la ñu pour dire que Macky Sall yëg na plainte Adji Sarr plainte bo xamni tam nee neen maître Diouf Diagne moo ko bind ñi nee maître je m'explique je m'explique li tax mané la dama ne la Cheikh Yérim ah. dafa ñëwoon pour enfoncer Ousmane Sonko mais dafa gën a leeral parce que mom mo né bañu waxé Antoine diom Antoine diom remonté ko ci Macky Sall Macky Sall dafa né nañu tek lepp ci souf buguma gagné sama té lool sax histoire Ablaye wad la. loolu Ablaye wad la won ak loolu c'est ah, en 2012 c'était veille élection 2012. loolu mom journaliste yi nga xamni ne nekk ci réew mi yëpp xam Cheikh yirim day fen mm, ay mbokk journaliste am ñoo génn naan ko Cheikh yirim yaa te le li gëna de dangereux ci réew mi ngay bind livre nan il aurait que. Mm. je pense que loolu conditionnel la. conditionnel la manam imaginer yak dara ku toll ni Ousmane Sonko nga xamni ne lu mu bon bon amna ñet nit yu ko gëm. Hmm. ngay wax ci mom lo xamni woru la. Hmm. manam motax tax dafa maanaam lii crime intellectuel la li c'est de l'hypocrisie intellectuelle c'est de li awma luma ko mën caractériser moo moo bu moo bu parce que pour man fall war nga mbubb mo sol jotul la waroo solal sa nawle yow war nga jombalé sa bop ngay kilifa ci réew mi di bind kat am xam-xam hmm. ngay bind livre naan ci kilifa gu toll ni Ousmane Sonko naan il aurait que je pense que je prétends que mooy mën na am yaakaar naa mais ce sont des graves révélations ce sont des graves. non révélations aussi sont des graves. accusations non c'est des des graves non des graves accusations des graves accusations. mais ni xaar que Sonko mu daal leer leer mi su ma yóbbu ko si yoon ak wàllu yoonal. ma la moo tax Sonko porté wu fi plainte Mamour Diallo. Hmm. fu mu mujj. porté wu fi plainte euh, kii nu mu tudd milliards moom moo dem ba bindal boppam plainte dem ci procureur waaw déglu ma 94 ah, hmm. hmm. moom laa wax dama lay dama lay wax ne dama lay wax moom porte plainte kii euh, Cheikh Yérim da koy may buzz na ko bàyyi xamala moo day jox sax ampleur wax bi Cheikh Yérim day fen maanaam moom ñun weddi wuñ ko de Sonko weddiwu ko xam nga ñun ñoo ko wedd ay mbokk journaliste am ñoo fekkee scénario boobu fekkee woon la fa xewoon ñu ne ko wax dëgg yàlla ngay fen foofu te moom sax bañul ne day fen tas dafa ne li may wax wóoruma dafa ne il aurait que conditionnel la la la Cheikh day fen léegi dafa bëgg atteindre benn masse critique maanaam Macky Sall lay blanchir di wane ni Macky Sall mi de bon na waaye it ki ngeen bëgg a jox réew mi bon na kon lu tax ngeen koy changé mun ngeen ko fi bàyyi benn rek moo tax képp kuy xas Macky wala ngay sax Macky Sall sax ko gestion am la ñuy Macky Sall bo indé gestion am tek rek xam la personne de Macky Sall ne m'intéresse pas. Hmm. mais Macky Sall comme président de la République si suñu hmm. bëgguma hmm. ndax bëgguma bëgguma ndax ni mu yore rew mi baxul bëgguma ko ndax yag na yak na ngor yag na dignité yak na yak na valeur yi ba paré nak tok ci suñu économie xot suñu économie étouffé ko ba askan beaucoup gis seen beaucoup ma bañ ko ta bañuma ko sa personne mais ni muy de gérer bëgguma

dafa gëna léral leeral aussi dossier Adji Sarr ak euh, euh, kii dossier politique la parce que mom moo ne Macky Sall grandeurum lay waxal nga grandeuru Macky Sall en politique Cheikh Yérim ku neex la néna ñun Macky ñun Macky Sall ñun lay wax grandeur quoi euh euh mom ci boppam Macky Sall bobu muy wax grandeur politique mo jël Koura Macky hmm. def ko ci liste mu nekk assemblée pour diko ko saagaaw Cheikh Yérim ñun président bobu lañuy wax ñun diñu wax grandeurum président bobu mo jité ki ñaan Ahmed xaaral xaaral xaaral xaaral mais xam Macky tamit moy citoyen comme man comme ah nationale assemblée il faut mettre les hommes qu'il faut. des hommes qu'il faut il faut il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Hmm. est-ce y a ngi dégg. Hmm. institutions bu mel ni assemblée nationale institutions bu mel ni assemblée nationale soxlawuñ fa insultrice dégg naa saagakat normal man jàngu may tubaab. Hmm. mais yaakaar naa ni. instru instru insultrice lañ koy wax wala insulteuse. saagakat bu avéré bu jigéen soxlawuñ ko ca eh. assemblée ba. Eh. ay idée lañ fa soxla. Hmm. ak ay projet de loi. Hmm. ak xam lan mooy loi xam lan mooy vote. Hmm. xam déjà yow yaay kan d'abord. kon grandeur u Macky Sall du seex Yérim moo ñu koy wax Macky Sall il est un petit président comploteur man ngay waxal. bu ci boo amee ñaari junni yoo maye mayal ku la neex fàllu mais boo bëggee dégg-dëgg woo ma ñu waxtaanee ko man damay jihaat nii ni ma gisee ni sama bakkan laa joxe man laa damaa joxe sama bakkan man fi toll nii man damaa joxe sama bakkan bii dama leen koo tey leen bu ñu ma reyee ma dem àjjana amul pare naa sama valise tamit pour dem tëdd kaso pour bu fekkee dëgg bii may wax pare naa xoola bu ñu taxawoon fii léegi billaahi ma ànd ak ñoom dem du sax te sama réew daf may jaral li Serigne Touba réew mi jaraloon ko woon li El Hadj Malick réew mi jaraloon ko woon ah, képp ku fi nekk laa la wax non attends nee nañ ne non ne président daa war a rey di tëj kon képp kuy wax lu ko neexul jàppal ni mën na laa rey mën naa laa man dama koo xaar man buñ ma reyee martyr laay doon Seydina Omar dañ ko fekk ci sàppe xoola da bax ko paaka mu dee moo ma gën fuuf ah. man ragaluma loolu amul problème buñ ma reyee àjjana laa jëm ma moo tax damay wax bépp jeune liñ leen di tiitalee naan non boo génne si nguuru Macky Sall moo tax euh, Cheikh Yérim yàlla na gudd fan ku mën a fen la ci nguuru Macky Sall ngay gis manifestation am de manifestation pacifique nga xam ne ay nit taxaw ne ñun am na lu ñu naqari comme ni ñu ko constitution waxee fekk la ñu bërëb sàngal ñu mettitlu ko ñu ne boo demee bu ñu la rayee da ngay perte Sall maanaam manifester di gis ñu avoué ko nii ay nit yu bokk ci parti Macky Sall ne ku fa dem bu ñu la rayee da ngaa perte kon Macky Sall dafa jël justice bi pour ñum rey sénégalais yi bu ñu bëggee wax lu leen naqari est-ce que yaa ngi dégg seen façon de réflexion moo tax ñoom ci boppam nangu nañ ñu dañoo bon nangu nañu ay raykatu nit lañ nangu nañ ne dañuy toroxal askan wi dañ koy toog ci ay plateau di ko avouer imaginez manifester ak ray lan ban sa ban ban rapport la am kañ la manifestation ak ray nit am rapport waaye nag ci benn journée ay jug di métti lu ñu métti lu ci ñetti fan nga rey ci quatorze personnes amul dossier amul enquête amul amul amul dara mel ni ay xar ñoo ay mbaam mel Adji Sarr lan la par parents ou 14 personnes yi dé lan le gueule y dé ci mois de mars 14 personnes de personnes, lan la leen Maham Macky lan nga lan la Sénégal yi dé Fulbert Samou ak nga xam a ni disparaître qui ne amul dossier amul enquête hmm. mais nous topp nous ci dossier ba dossier politique ne nañ askan day ba day non pour le nom de la justice il faut que nous ñu leeral ko wallahi Ousmane Sonko demul procès hmm. te inshallah, rabbi 2024 day bokk par force à que vous bëgg dindi Sénégal par force. force alors euh, par force là, là, par force. si même Macky qui n'a képp képp mu jël wala que mais dit vous avez ak pexeem yi muy teg billahi dinañu ray nak ba ñu dina ray ñu bari ci ñun waye billahi bu ñu reyee moom it dina dina jóge fa mu nekk bu euh, fay jóge du soldat alors président Macky